tey bi sëriñ bi renouvelé te li nga xam ne seen mooy confiance am ci Abdou Lahad Ka mu jaarale ko ci sëñ Sidi mu si Abdou Lahad agent yi nga si ne tey ñoo doon liggéeyandoo ak Abdou Lahad Ka juróom-ñaari at yi ba ci juróom at yi mën naa wax ne fukki at ak nangam ñoo woote woon tey di ko sargal ñu jëloon parrain bi nag jox ko Saliou Ka di kenn ci ñun di suñu kilifa ñu bokk ak moom ci cabinet maire mu doon lu ñu rafetlu trop ndax tey kenn ku ne xam na ne barki démb bi ñu installé li nga xaman si ne tey mooy maire bi fii ak adjoint au maire yi sëriñ bi daf leen woon muy téeméeri conseil yi ca Daaru Minam ca këram ga wan leen ne da ngeen di soog a tàmbali kon alhamdulilah kon agent yi mooy li ma wax fii rek bu yàpp yëpp meloon ne res paako du ci wuti wàll ñoom bi sëñ bi joxe ndigal mu ngi leen fekkoon ci waar bi kon tey jii bu ñu dajee ci commune bi xale yi nga xamante ne tey ñoo nekk état civil di liggéey fii ci commune bi jël cadeau woo ci mbooleem koo xamante ne tey agent nga boo xam ne yaa ngi liggéey ci commune bi yaa xam ngay collecteur yaa xam ngay technicien yaa xam ne dañ koy doon loolu xamante ne tey lu ñu rafetlu la Saliou Ka mi nga xam ne nag moom lañu tuddee woon bis bi ñu wax ci turam mu jël ak cant goo xamante ne tey da koo tibbee ci xolam sant ki nga xamante ne tey mooy maire Abdoul Ka muy sant goo xam ne am nag tàmbali waaye amut yemukaay te la waral mu sant ko tey ñii nga xam ne dem nañ ba xemmem ko ba am bis buñ ko tuddee ci commune bi grace à ki nga xam ne tey mooy maire bi te loolu it mag la muy moom Saliou di suñu mag di suñu xarit di suñu wëlëre di suñu lépp tey adjoint au maire yi ñëw am ci ñoo xamante ne tey dañoo teewal ñi ci des ku mel ne sëñ Sidi jël na fi kàddu mu sëñ euh, Cheikhouna mu sëñ Abdoulahat ak bay Ndiame mi nga xamante ne tey doyen la kenn ku ne xam na ne ku gis bay Ndiame ci Serigne Cheikh Saliou la jóge doon loxo ndeyjooram doon loxo càmmoñam doon léppam te Touba mooy doxee noonu ndax Touba kenn ku ne gis na tey ji fi mu toll nii dama koy faral di wax Touba jàng tubaab yoru ko da ngay jàng Touba ndax dafa am ay réalités boppam sëriñ bi li mu dénkaane barki démb képp doy ndax nee na Touba ci Sénégal la kon ñun ñi nga xamante ne tey jii fi mu toll nii sëñ bi daf ñoo dénk. wane na tey commune Touba yoruñu li nga xam ne tey mooy nguur li ñu yor du nguur barke la te barke bi kan la Serigne Touba la Serigne Touba fu mu jëlee barke boobu ci subhaanahu wa taala yàlla. kon loolu dañuy dellusiwaat rek ci waxi Cheikh Abdou Khadir Mbacké mu baax ma dafa waxoon ne de ñun de xamuñu jàmbaar waaye ku ñu dimbali lañ xam kon Abdou Lahad mii dañ ko dimbali wax na ko fii barki démb ndax nee na bu fekkoon ne lu ñuy jaay la amul njëgam bu fekkoon ne tey jii fi mu toll nii lu ñuy bind di ko demander rek du ko am. kon yàlla moo ko baaxee ci baaxuk sëriñ bi ndax wax na ko fii keroog ba muy jël tureel di tabax commune bi ku ko ne woon yaa koy euh, dem ba nekk président communauté rurale bi bay nekk premier maire boo xam ne seen tey ci Touba yàlla dogal tey ji mu ñëwaat di ñaareel bi maire fi mu toll ci Touba loola jëfi-jëfi suñu borom la kon ñun ñëpp nu ñu tënku ci ndigal loolu yi nga xam ne seen tey moom la sëñ Muntaxa joxe ndax tey bu ma waxee ndigal li yéen ñii nga xam ne tey ji yéen a yore organe yéen a ngi ci biir tey bu fekkoon ne lépp loo xamante ne tey def nañ ko àggul ci askan ba kon jàpp naa ne kenn du xam lan mooy njëriñu li nga xamante ne tey mooy commune. la bu loolu lépp jàllee ginnaaw équipe bu bees bi nga xam ne teg nañ ko lan nga ñu ci mën a wax ak ci lan nga leen di xaar. waaw équipe bu bees bi li ma ci mën a wax du bari ndax kenn ku ne xam na ne 2014 euh, dañ fi taxawaloon commune jël lu tolloog gis adjoints au maire ak i président commission. tey commune Touba bari na ñoo xamante ne dañuy wax ne ay borom xam-xam nekkuñu fi mais borom xam-xam tigi ñoo fi nekk ndax tey bu fekkee ne dañoo jël téeméeri conseil am ñoo xam ne ay juriste lañ am ñoo xam ne ay ministre lañ am ñoo xam ne ay journaliste lañ am ñoo xam ne xam-xam bu fasantikoo la ñu am ñu dem ba bàyyee ki nga xam ne tey liggéey bi mooy maire bi ak quelque conseil yoo xamante ne tey ñoo nekk ay adjoint au kon ñu dañ leen war a sant gërëm leen fukki nag adjoint au maire ak juróom yi nga xamante ne tey jël nañ leen damay wax toujours ne yàlla buñ mel ne fukki yi ñu fi jëloon ndax fukki yi ñu fi jëloon kët am na ak sooxe am na ci ñoo xam ne keroog bañ leen nommé lañ fi gëj a jaar. Ah xanaa weer weer de ñu taxaw fii ci buntu commune bi jël seen carburant dem. loolu nag soññee bii sëñ taxaw wax ne loolu lépp ab wàccaay la woon tey jii fi mu toll nii liggéey jot na kon nañu takk suñu ndigg ñun ñëpp jéem a essayé nag jéem a essayé jëlaat beneen engagement bu bees. jàpp ci liggéey bi nga xamante ne tey liggéeyu xaadim rasul la te sans conseil yi nga xam ne tànn nañ leen kenn ko ne jàppal na yaay meeru dëkk bi ndax gaa yi dañuy wax ne Touba élection élection nee naa leen nag Touba élection amu fi ndax liste boo xamante ne tey kenn ku ne xam ne ne jàll na avant ay élection kon élection amu fi toujours da ngay dégg ñu naan maire bi jàll na maire bi jàll na maire bi jàll na mais sans conseil yi nga xamante ne tey ñu ngi ci liste conseil municipal bu Touba keroog ba leen bindee rek la ñu jàll kon élection amu fi c'est li fi nekk nag ñu war ko dimbalee sëriñ bi war ko dimbalee Abdoul Ahad Ka muy conseil bi muy ñi nga xam ne seen tey mooy entourage bi nañuy jotal ndax kenn ku ne xam na ne tey jii même président de la république léegi-léegi am mbir boo xam ne si ne tey day am te du ko yëg il a beaucoup fait pour Touba mais pourquoi muy perte kon